pal euh, leader yi nga xamante ni jiitu nañ ma ci kàddu di rafetlu kàddu yu rafet yi nga xamante ni jël nañ ko au nom des forces vives du Sénégal damay tàmbalee rek benn information bi nga xamante ni jot naa ko léegi euh, jóge ci sama avocat maître Moussa Sarr ndax ci fàttali euh, gannaaw biñ ma tegee loxo fii ci buntu suma assistance ci lu dul dëgg du yoon ñu bàgganteloo ma entre les commissariats brigade de recherche cave dañ ma présenté au juge d'instruction du deuxième cabinet monsieur Mamadou Seck bi ma jàkkaarloo ak moom mu ne ma ni procureur euh, mandat de dépôt le requérir requérir c'est-à-dire dañ ma war a yóbbu kaso waaye ci xarañtewu sama avocat maître Moussa Sarr bi génnee benn vidéo bi wone circonstance yi ñu ma jàppee yi nga xamante ni day réfuter charge yi nga xamante ni dañ ma ko tegoon basé sur l' article quatre-vingt juge bi bi mu ko gisee mu daal di ne ni Aliou mënuma la yóbbu kaso ndax euh, vidéo bi ma teg ba li ñu la teg comme charge vraiment vidéo bi teg na tuuma googu donc dama lay bàyyi en liberté provisoire ci laa ñibbi sama kër comme vous savez aussi suite à ça ci ay fan ci ginnaaw benn dimanche la sax benn week-end d' ailleurs je sais pas pourquoi euh, sama avocat mu woo ma wax ma ni Euh, procureur dafa def appel c'est-à-dire euh, décision bi nga xamante ni juge d'instruction bi jël na ko pour mettre ma en liberté gannaaw bi mu xoolee vidéo boobu nga xamante ni day teggi tuuma yépp euh, moom la attaqué jàpp ni décision boobu dafa war a deñ et dañ ma war a yóbbu kaso donc mu dem en chambre d'accusation mardi passé la amoon première sama avocat demoon chambre d'accusation ñu renvoyé woon ko à aujourd'hui donc ñu ci bëri ñu ngi doon xaar liy xewee chambre d'accusation et léegi nii maa ngi jot euh, maître Sarr ne nii pare na plaidoirie am et que chambre d'accusation dafa délibéré décision bi dafa daf ko mettre en délibéré pour le 25 juillet prochain c'est-à-dire mardi prochain encore vous savez ce que ça veut dire vous connaissez ces pratiques-là mais du loolu moo ñuy xoqatal du loolu moo ñuy delloo ginnaaw ci suñu engagement pour le Sénégal suñu engagement pour suñu démocratie pour état de droit bi ñu xamee depuis 2011 bi ñu sosee Y'en ñi nekk ci nguur gi tey ñu nekkoon ci suñuy wet pour des principes tey ñoom ñu nekk ci nguur gi di xoqatal ay citoyens man sama dossier mooy li gën a tuuti ndax dinañ ci ñëw li waral marche euh, vendredi bii di ñëw ay dossiers yu gën a tar ay centaines de citoyens yi nga xamante ni euh, c'est des prisonniers politiques des prisonniers d'opinion ñu ngi leen di tëj ci kaso yi ay leaders politiques yu ñuy xoqatal bi ci mujj rek mooy monsieur Déthié Fall euh, gendarme yi ñëw assiégé siège am Euh, sans parler de monsieur Ousmane Sonko bi nga xamante ni aussi bokk na ci leaderu F24 yi boobu ba tey ñu ngi barricade këram ci lu teguwul ci